damay yëkkatiwaat ay kàddu njaal di ko jébbal askanu Sénégal ndax si 2021 bii ñu génn dafa am ñett yoo xam ne dafa daje senegaal muy mbënn mi muy mbas mi ak muy mbëkk mi yóbbu fi ñu bëree bëri ñu baax a baax a baax ñoo xam ne xam nañ leen ñoo xam ne xamuñu leen donc di jaalewaat waa Sénégal yépp mais nag euh, bu ñu gisee problème bi tam tollu foofu dafa fekk ne am na yenn situation structurelle yoo xam ne suñuy politiciens ñoo ñu fi teg de 1960 à 2021 si la rupture juddoo en fait parce que rupture ab constat moo tax mu judd lan mooy constat bi tey jii nii ku si nekk mun nga si teg say bët maanaam booy xool Sénégal tey. suñuy géej ndox mi dañ ko jaay suñuy suuf dañ ko jaay suñuy ressources naturelles dañ leen jaay chômage bi nag toll ci niveau yoo xam ne moo suñu ko gis au même moment li nga xam ne mooy tax ab sénégalais waru dund muy suñu électricité cher cher boo xam ne amul dara lu koy justifier suñu ndox cher cher boo xam ne amul dara lu koy justifier ba pare nag yokk si ne ndox meeg électricité bi yenn saay day ñëw yenn saa du ñëw suñu sax téléphone maanaam yu ñuy jëfandikoo pour woo suñuy mbokk woo suñuy xarit woo suñuy am di jàmm gën a cher fii que dëkk yi nga xam ne ñoo ñu ëpp doole te loolu dinaa ñëwaat si explication yi lépp nag li ko lëmb mooy situation insécurité boo xam ne mosuñu ko gis ci Sénégal lan mooy raison bi raison bi jarul ñu koy compliquer la raison bi mal gouvernance la raison bi dépendance voulue et assumée la de la part de raison bi corruption la maanaam mooy sàcc lan mooy conséquence yi conséquences yi mooy désespoir boo xam ne kenn mënu ko sax tudd fu ne nii ay xale yoo xam ne ñu ngi seen diggu doole di jël ay gaal di may seen yaram géej gi di may seen yaram désert bi parce que désert foire bi toll na foo xam ne attanatuñ ko lan moo koy firnde boo demee ci dëkk àll yi nga xam ne am na ñoo xam ne si ñu fa leen jógee am na ay jigéen yoo xam ne ba ci 2021 bi dañuy bëgg a indi bakkan ci àdduna bi seen bakkan far fa ndax manque de prévision bi ñu gouvernement bi teg yoon yi bon amul ay opito yu baax moo tax tey li may wax mooy nous sommes devant vous parce que cette république est en danger amul beneen mot bu koy qualifier el croule sous le elle croule sous le poids de l'agonie te lenn li ñu si tax a teg mooy dañoo toll foo xam ne fu mu ne nii sénégalais yi ñu ngi posé wu ay questions yoo xam ne jamais si suñu histoire moo suñu ko posé muy question bonne gouvernance muy question yi ñuy jiite muy question yi nga xam ne mooy sookul suñu développement moo tax cette fois yi li may wax yi yàgg nañu promettre changement mais dama ne cette fois-ci il n'est plus question de changement il est question de rupture tout parce que dafa am ñaari rupture yoo xam ne war nañ ko opérer pour Sénégal mën si génn rupture bu si njëkk dafay nekk une rupture dans nos relations internationales pour ñu mën a nekkaat acteur et bénéficiaire de notre rapport au monde beneen rupture bi dafay war a nekk une rupture interne maanaam defaraat kër gi ma jubli si rupture bu njëkk ba maanaam président yi ñu jiitu ba tey sax 1960 ba tey mun na am du ma leen blâmer parce que booy xool ñoom ñëpp seen rapport ak tubaab bi rapport de dominant à dominé la maanaam dañuy xool tubaab bi comme kuy xool yàlla ñun suñu génération complexe boobu amu si mais fàttali ñëpp ne je suis encore relativement jeune mais tey jàngal naa ay tubaab yoo xam ne ñii ñu ngi liggéey si gouvernement américain bi ñii dellu neen Europe di liggéey sa dëkk yu mel ni France Norvège Suède et cetera. ñii rejoindre leen yenn instance internationale y la banque mondiale ñoom du ñoo fay jege suba ñëw ne ma caam lii mooy état alors que ma leen jàngal luy état luy sens su état luy mission état luy fonction état donc complexe boobu mënu fay dañ nu fay am mais nag complexe bi bu doon si complexe ak lépp sax muy jàmm mais complexe bi dafay feeñ ba si contrat yu ñuy signe parce que développement relation internationale la d'abord te xoolal lan mooy suñuy nature contrat xoolal organisation bi ñuy jox suñuy autoroute concédé leen ko à mille francs bon il pare que sax léegi yokk neen xaw ma lan 800 millions leen wax xaw ma ñi koy négocier ñooy ñan nga xoolaat yeneen contrat yoo xam ne signé neen ko tey yi si gën a fës muy lu ñuy tuddee les fameuses APE ma faram fàcce boobu tuuti lan mooy APE lan mooy mission a e? dafa nekkoon loo xam ne ci sens biñ ko njëkk jox mooy dimbale Sénégal pour insérer Sénégal ci commerce ak ci économie mondiale pour ñu mën a développer wu pour ñu mën a nekk un pays émergent d'ailleurs xeeb sa bopp rawul sa objectif mu nekk émergence tey ji Sénégal beneen objectif wala peut-être boog seen tubaab moo leerul parce que émergence moom mooy loolu du développement mais ma delluwaat si APE yi yow nga ne si base texte yi dañuy basé wu si suñuy ressources naturelles propres pour mën a développer wu au même moment tubaab bi signé loolu ay accords yoo xam ne da ngay concéder vingt quatre milliards droits de douane rey produits yi nga xam ne sa dëkk lay jogee ray ressources naturel yi nga xam ne sa dëkk nga ko war a jëfandikoo manque de cohérence boobu xaw ma nu ñu koy nattee beneen bi nga xam ne maanaam suñu fruit relation internationale la ba pare régime bi nga xam ne moo nekk en place tey sax peut-être moo si yées parce que dañuy comporté wu comme surtout suñu président bi di comporté wu comme président comme comme préfet France muy li tënk li nga xam ne mooy suñu monnaie national parce que loolu képp koo xam ne jàng économie développement loolu leçon bu terre la mooy réew ab réew am réew soo amul sa économie bopp boo amul sa monnaie bopp munoo développé wu. te li si gën a bon mooy franc CFA bi dañ ko tënk-tënk boo xam ne quatre principes tënk ko yoo xam ne bu si nekk dafay suuxal Sénégal tey bi si njëkk ñu koy tuddee la fixité des parités la fixe des parités tant que mu ngi am mooy Sénégal choc bu ñëw si àdduna bi ñun ñooy njëkk a alors que buum bi ñëw si àdduna bi ñun duñ ci bénéficier wu mais loolu tax ñu koy nangu parce que mënuñu résister choc yi parce que amul benn flexibilité bu si ànd réew yi nga xam ne ñoo moom seen bopp dañuy créer flexibilité boobu à pour ñu mën a génne seen réew si guuta buñ ko buñ fa tollee maanaam benn économiste bi nga xam ne sax si ñu gën a xarañ si àdduna bi la bokk ñoo xam ne ñëpp ñu ngi koy kii ñu koy tuddee John Maynard Keynes dafay wax ne sax la technique de l'hélicoptère nee na ab réew na fooy toll am nga santañ jël hélicoptère dugal ci xaalis sànni ko population bi jël si parce que foofu la toll mais ñun li ñuy wax mooy lan mooy dafa mel ni rek ñu jox la sa oto bu bees tax ne la dawalee ko ndakaar dubalee ko Tambacounda mais oto bi ngay dawal amoo droit signalé amoo droit yokk vitesse amoo droit wàññi vitesse amoo droit freiné mais loolu mooy oto boobu du ma sa egg Tamba. te loolu mooy oto bi sax accident day am si yoon bi moo tax ñun si accident leen dëkk si accident économique leen dëkk te loolu dafa war a dañ deuxième principe bi ñu ngi koy tuddee mun naa ñëw sax si bu njëkk bu mujj bi bu mujj parce que boobu tam dafay daf may joxaat yeneen ñaar yi mooy centralisation des réserves de change maanaam ñun ñu jël suñu xaalis mel ni duñuy adulte permettre benn pays étranger mu gardeel ñu suñu xaalis ak intérêt yi siy ñëw mais dama ne ab bébé sax bu juddoo bu ñu buggee mu grandir dafa am fu ñuy toll foo xam ne cordon ombilical bi dañ ko war a dagg parce que bu ñu ko daggul màgg du si am deuxième principe bi mooy li ñuy tuddee la libre transférabilité boobu li muy favoriser lu yomb la mooy fuite des capitaux mooy corruption moo tax booy xool Nations Unies am na benn étude bu ñu def ne xaaral ma cité leen chiffres pour du bañ ci am de 1960 à 2021 perdre neen dëkk africain yi plus de 400 milliards de dollars ma répété ko encore 400 milliards de dollars même étude bi di wane ne de 1980 à 2009 perdre neen. entre mille deux cent et mille quatre cent milliards de dollars loolu mooy équivalent suñu produit intérieur brut mais loolu mu mënu see am beneen principe bi muy garantie de convertibilité maanaam dañoo jël suñu koom-koom tënk ko ci France nattu ko seen bos ne ñun suñu xaalis France rek leen ko mën a wecceel li si gën a mooy ñun. continent bi ñu ngi ko bokk dëkk yu ñu tuddee Cameroun Centrafrique tey suñu xaalis mënuñu ko weccoog ñoom mais te économiste yëpp xam nañ ne développement ci say voisin nga ko mun a defal ak ñi nga xam ne yéen a tolloo doole mënoo ko defal koo xam ne rapport de dominant dominant moo dox si diggante bi te leneen li ma si gën a naqadi mooy malgré concession yu ñuy def yëpp on nous méprise xool leen exemple Lamine Diack yàlla na ko borom bi yërëm taxare ko àjjana lan la def loo xam ne Michel Platini dafa ko lan la def loo xam ne Sepp Blatter dafa ko mais lan la ko tubaab yi def der bu ñuul la amul leneen te Lamine Diack au moins am na tur mais xalaat leen ñi nga xam ne ñu ngi ci condition yooyu noonu ay sénégalais te amuñu tur ay africains te amuñu tur sama engagement lenn li ko justifié. bokk si ne ne dama dem en 2017 bés boobu ba léegi duma ko fàtte sama giiru dund c'était un soir du 15 juillet ànd ak sama ñaari xarit ñu dem si benn foyer bi ñuy tuddee foyer Sundiata si benn banlieue Paris la nekk ma daje fekk benn xale sénégalais la à fleur de lage mu ngi tudd Samba ñu waxtaan fa lu mat ay trois heures de temps Samba première fois bi mu bi mu essayé traversé bi entre Sénégal pour dem France jaar ci géej gi xawoon na faa des mais mu mucc si ñu delloo si waat ko Sénégal mu tenté waat une deuxième fois ma ne ko mais yow lan moo la si jubal tenté waat une deuxième fois mu ne parce que Sénégal dama fa dee ba noppi amatul raison ma toog si réew moomu noonu mais ma gis moom ak ñi mu nekkal. ñu teg leen ci ay conditions yoo xam ne conditions yi day bafouer sa dignité d'homme te donc conditions yi dafay bafouer ma dignité d'homme à moi aussi bés boobu laa yeewu ne fu mu ne nii li ma dese sama giiru dundu dama koy consacrer ci yëkkati der bu ñuul parce que ma nekk universitaire ma nekk co-directeur programme doctorat ma nekk professeur titulaire des universités amul benn sens li ëpp sance mooy sénégalais la noir laata te africain la bokk ko ci génnee amul dara lu ci des li des ba des mooy respect kenn du ko saraxu danga koy arraché te li ma mën a promettre sénégalais yi mooy ak suñu génération am na yenn mépris yoo xam ne mënatuñ ko accepter image pour image bés bu fi tubaab yi takkatee sénégalais mu wàcc aéroport Blaise Diagne avion bi siy topp di jubu Paris dañuy takk ab français mu wàcc Paris ñu wan francais yi ne fu mu nii mbir mi dafa jeex parce que il faut ñu ñeme ko il faut ñu dund en homme libre wala ñu dee te gëm naa ne dee du si am parce que fu ne nii yàlla may na sénégalais yi loo xam ne mayu leen ko woon temps njëkk ya domaine boo munti xalaat muy domaine de compétence domaine de xam-xam foo dem si àdduna bi fekk fa sénégalais donc organisation la laaj moo tax ma ne deuxième rupture bi te rupture boobu sax moo ëpp solo dafay nekk rupture dans la vieille façon de faire la politique rupture interne tabaxaat suñu kër raxasaat ko balaa nit ñëw di ko raxasal wa di ko jéem a di jéem a wut lu mu def dindi corruption neen wax moo bi dindi sàcc bi neen wax moo bi mës a ñëw Noël jot papa ji jël añ bi te jël reer bi teg te instant yooyu nag bi mu jëlee reer bi muy ay nuy maanaam mun neen ko tuddee en wolof peut-être ay spaghetti wala parce que amuñu ko fii nii mais mu am nen papa ji jël benn nen teg ko ci kaw beneen bi beneen bool bi amul dara papa ji ne ko jëlal tamaa jël bool bi am nen bi commencé lekk ñuy lekk ndoor papa mu jékki-jékki gis ne papa ji mu ngi jeex ci suuf ñaari nen génn si mu ne ko tamaa lan mooy leçon bi tamaa ne ko déet xaw ma lii leçon bi wax ma lii leçon bi mu ne ko bés boo yaakaaree ne yaa ngi nax nit ñi rek yaa ngi nax sa bopp parce que da nga doon foog na yow man ngay nax fu mu ne nii pour jël bi am nen bàyyi ma bu amul nen bi deuxième jour mu jëlaat ñaari bool teg benn bi am nen beneen bi amul nen tamaa évidemment jël bi nga xam ne amul nen ñuy lekk ba mu yàgg papa ji génne boosam lekk toma di gas di gas gisul benn nen papa ji ne ko nag yenn saa sa expérience da lay nax troisième jour mu jël benn boo xam ne benn nen la beneen bi amul nen mu ne toma jëlal toma ne ko déedéet bi paa jëlal papa ji jël bi nga xam ne moo am nen tamaa ne ah kon tey mbiri jeex na parce que man fu ni nii moom bi nga xam naa bi may jël moom da am nen tamaa di lekk di lekk di gas ba mu yàgg fekk ñaari nen si suuf papa jaaree te lekk ji ne ko lan mooy leçon bi tamaa ne déedéet dama bëgg nga wax ma luy leson bi papa ji ne ko Thomas Sankara leçon bi mooy lan mooy bu ñu la tegee ci condition de force nga nekk njiit bu fekkee da nga xalaat ñi ngay jiite balaa ngaa xalaat sa bopp lu baax rek moo la siy fekk noonu la suñuy politiciens war a xalaatee moo tax ma ne 2024 du choix bu compliqué dafay nekk choix boo xam ne sénégalais yi war nañ ko def mooy choix bi nga xam ne tey jii retraité bi nekk Kër masaar ki nga xam ne àdduna yëpp daf ko consacré pour Sénégal mais mu leer ko ne ay homme politique ay femme politique am fàtte neen ko choix kooku la war a doon choix bi nga xam ne tey xale bu jigéen bi nga xam ne mu ngi juddoo si gulumbu ba mu wóor ko ne ay politiciens am sàcc neen droit dignité sax avant muy juddu choix bi foofu lay féetoo muy soit jeune garçon bi nga xam ne ndukumaan la juddoo mu wóor ko ne tey politiciens yi sàcc neen njàngam balaa sax muy juddu ak suñu école yi ni mu yàqoo mu nekk choix bi nga xam ne père de famille bi ak mère de famille bi sacrifier seen àdduna yëpp pour seen doom mais mu wóor ko ne moom ci boppam droit am ci sante fu ne nii sacrifier neen ko ndax politique boo xam ne ci corruption leen ko basé loolu mooy choix bi tey choix bi ñaari kese la amul ñett bu fekkee ne 1960 ba léegi li ngeen gis Sénégal mu ngi dox képp ku ngeen fi mënta choisir baax na mais bu leen wóoree ne 1960 ba léegi li fi am doxul pour yéen dafay marcher pour une infime minorité boo xam ne suñuy école ñoru leen parce que seeni doom feneen leen di jàngee suñuy hôpitaux ñoru leen parce que bu ñu sëqatoo sax faju ji neen France Maroc wala États-Unis bu dee jàpp ne leen bu dee jàpp ngeen ne daal loolu mu ngi dox pour yéen na ngeen choisir la continuité mais bu ngeen soit bu ngeen décider ne loolu doxatul pour yéen benn choix moo fi sës mooy la rupture asalaamaaleykum